Bonjour, yi salaamaaleykum dal leen ak jàmm sur www.igfm.sn ak euh, IGFM euh, TV donc comme euh, chaque semaine dañ leen di indil benn kangam ci métier bi nga xamantene rek mom lay def mais tay dam leen indil ay kangam indil leen producteur indil leen rappeur donc occasion le tay ñu waxtaan ak yéen ma am ci ku mel ne Sylvain producteur ma am fi Ambi am fi Joe Memba donc euh, tey euh, kontaan nañu dalal leen euh, fii ci suñu plateau di leen wax ngeen nuyoog internet yi leen di merci Fama Salam alaikum, Sénégal waaye di leen di en espérant que vous a un petit Sylvain Gomis producteur euh, je suis le fondateur de Roura Record et le cofondateur de One Nation TV Je ma bye boy. yi présenté ok. salaam Galsen sen, ngi nuyu képp kuy suivre émission bi di leen wax ni Ambi la artiste rappeur sikap Diamaguène azir ba Azur fépp bok ci compilation revelation SN def ci track numéro 5 aussi mang ngi ci Rabel Raw Rap Record. yeah salam tout le monde xam nga kep ku ñuy seetaan maa lay bëggee di la xiar xam nga di la jox sa way di la bëggee yow sister Fama xam nga di bëggee wa jandeer yëpp xam nga jandeer yëpp yu ñuy sétane fi ma joggé di nuyu sama pap ak sama yaay ak sama ak xam nga sama gars yëpp quoi mm. waaw di la wax que ni xam forever. <laughs> <laughs> ok euh, euh Rap record. Roux, Rap c'est quoi ça signifie en fait euh, roux en wolof ça signifie âme mooy c'est suñu mm. roux quoi mm. en fait roux dans le sens où l'essence. la la la la la chose qui nous qui nous qui nous maintient en vie en fait. Euh, ci côté musique bi lañ ko côté hip hop bi pour euh, juste pour par rapport ak euh, essence hip hop en fait essence rap musique. ouais ñun loolu la loolu représenter quoi. d'accord est-ce que mën nga revenir un peu ci projet bi. <laughs> ci projet bi initiative Révélation SN en fait Révélation SN sama que xarit bu de A9 nekk Grande Grande-Bretagne. Moi, mu njëkk a envoyé deux sons de ñëwoon en vacances envoyer deux sons artistes Moi, euh, Kelisa, le premier morceau et euh, Chief Atou le son destiné ma déglu son ils son ils def ma dara nag ma toog ay ay ay jours di déglu il faut en fait moi def benn compil boo ce sera que des des nouveaux artistes des nouveaux talents en fait des nouveaux talents à faire connaître au public parce que Boy booy dañ tàng te Sénégal bëri ay ay artistes yu en fait ay jeunes artistes yoo ne ils sont pas connus mais qui sont excellents. Ouais. En fait, Et pas la chance de yi le leen. c'est ça. D'accord. euh, ma ñëw ci euh, Ambi. Ambe, pourquoi Ambe Tourbi, bi euh, fan la et tout. ok Tourbi, Tourbi, n'est que nekkul extraordinaire. c'est juste mhm. que Amidou laa tudd. donc euh, Sénégal am une tendance ci dagg tur ok Amidou Afrique, les gars yi di ma woowee am. ok ok après loolu fekk si ma ci milieu hip bi donc j'ai pas cherché loin pour créer tout le Je ma jël après Bibi. bi day nekk loo xam te comme ay gis nañ fa artiste artistes def ay comme ay Didi bi Côte d'Ivoire ay Cardi bi après ma def ambi genre distinction la ambi ni quoi existe genre existence d'accord donc euh, nan le euh, sélection bi comment vous avez sélectionné les jeunes. sélection bi en fait comme dama fi am naa fi xarit yu nek ci milieu bi ñom l'a contacter na ma ne ñu envoyé ma en fait ay ay ay ay morceaux ak euh, ay jeunes talents yo xamné ne fa ils travaillent avec eux.

envoie moi aussi à euh, C'est en fait no sélection nous le quoi j'ai essayé de toucher à plusieurs quartiers en fait hmm. pour faire bien intéressant d'accord critères c'était quoi le talent le talent en fait en plus et aussi l'originalité en fait parce qu'après, en fait pour moi intéressant il faut que l'artiste euh, soit différent quoi d'accord ouais style est différent nga xam que en fait c'est surtout ça. D'accord. Euh, Joe Memba, mhm. euh, Joe, pourquoi Joe Memba Joe Memba, bon, man, sama un deug Mansour Les Les qui Sénégal Mansour ñu les mhm. mhm. Memba grand frère je nga koy nuyu muy Je ni Memba mais moment je koy laaj Joe Memba la lay mais bon quoi ndaga ki la doon wax zo mamba mamba noir quoi. xam nga mamba noir. Mm. serpent bi quoi serpent mamba noir. Mm. non la quoi nem bi la juddoo. bu concert et tout xam nga ñu laaj ma sama zo mamba mamba bi tamit frappé gars quoi. Mm-hmm. quoi. d'accord euh, tay nga bok euh, compilation bi euh, ñu ñu nga ci mm-hmm. et puis nga bok ci projet bi. Mm-hmm. lan la lay def. lu ah franchement parler parce que mon projet bi bu ma ci duggee c'est à cause de Bamba quoi yalla nako yalla yàlla suñu borom yeureum xaral ko aljana nit ku baax. moma ma contacté mu ma dafa am ben producteur bu nek France bu bëgg a ben projet quoi. Mhm. mu ni ma nag fil la te bëgg naa ko affaire bu la filé nga bokk ci. après c'est là ko sen samay samay samay quelques affaires après si la ko envoyé Sylvain Sylvain tamit xam nga nek grand bu baax nek ku cool quoi après mom tamit ci la ko déglu. xam nga film quoi. Mhm. lay si la mu bindal contrat après contrat bi ci laa ci laa ci waxtaan ak sama staff et tout ñu xool que ni contrat bi arrangé nañu quoi yaa ngi comprendre après si lañ ko signé commencé liggéey ak moom te tamit li mu waxoon ba léegi ci contrat bi ñooy wéy ak lool te aussi tamit. man am naa suma propre label mais en même temps signé naa ci label am quoi. Mhm. Eh, Rourap Record maa ngi foofu tamit en même temps quoi. Ah, noonu la juddoo quoi mais moo ngi dóob ba léegi mu ngi nice quoi franchement pare. ok euh, euh, tay nan nga def ba réussir euh, douze sons yoo xamante ne que si compilation bi la comment fait la chose. après en fait man je pense que tu après tu instruis le quoi kon ni wax ci musique bi musique il en fait ama euh, sooy soi sooy créer compil mm-hmm. foog nga am ay ay beatmaker yo xam ñu lay dañ lay proposer ay sons yo xam en fait déjà day day intéressant et après day style bi day day différent en fait en fait man loolu chance boobu la am. Mhm. Euh, dama yoron quelques sons après contacter quelques mm, quelques beatmakers comme A9 mhm. euh, contacter naa tamit euh, mm, Dixa bu Alien Zik def na ci ben son ak yeneen yeneen beatmakers yo xamné en fait ñoo ci jàpp. Robits tamit bu bu fisk sans sans oublier japp nañ ci en fait loolu nak moy moy moy def différence quoi so xolé ak artistes yi tek ci. Mm, d' accord euh, Amby donc euh, tey nga nekk euh, ci labelu Sylvain nga bokk ci compilation bi lan la yokk ci sa carrière waaw yokk na sama carrière avancement yokk na ko sérieux aussi parce que boo xoolee dama doon dama doon nekk artiste boo xam te <laughs> ma ko woowee sax artiste moment boobu noonu. Mm-hmm. parce que da nek nekk ci ci benn affaire xamoo sax fi mu jëm. Mm-hmm. ay son def ñu koy envoyé te WhatsApp gars yi di ko kii nga nekk ci mbedd yi wala ci school yi di freestyle ak say gars. Mhm. donc moom bi ma découvrir euh, gis na dara waaw gis na dara léegi nag euh, loolu moo comme nga gis ni xam ni kii dara. Mhm. bàyyi ma bàyyi ci coaching ko ànd ak moom. Mhm. léegi moom loolu la def bi mu defee loolu euh, ma signé ci label automatiquement fekk na ñu ngi ngi togg Révélation SN léegi nag ci laa ci ci ci def son bu ñu mu clip vidéo bi vidéo am na clip déjà mu ngi ci réseau mu ngi ci YouTube bi mm. mu ngi ci yenn site clip bi important jaar na yoon gars yi yëpp xam ni instant bi fekk man nag balaa gars yi di ko découvrir sax man xam naa ne instant bi sérieux jot na mm. c'est du sérieux parce que mënu ma ci mënu ci dugg naan passion bien vrai passion la aussi mooy jiitu am na benn moment booy toll di nga di nga di nga a Euh, gérer sa live dee géem a am loo ci loo ci kii quoi parce que musique bi nekkul loo xam te ni da koy def rek échec am na ñu ko def réussir am na ñu si am leneen ak leneen ak leneen te toll naa ci moment boo xam te ni dama ci dama koy jàppee loolu mm-hmm. leneen ak leneen ak leneen loolu gars yi si am pour naa ko am ba dépassé ko donc mu gën a sérieux ci loolu grâce à Job ak Sylvain ci coaching son yi parce que parce que man daan naa damay damay ñew rek def son numa ko filé yondé gaay yi xamuñu dañ na la nice rek <laughs> waaw mais légui pour nga génnee son sax xam problème la parce que à chaque instant dañ la géem ki wat xolal bi non bi baaxul génneewul bi wala modifier li wala yokkal di énergie donc costing bok noonu ça va quoi amna amna solo bu baax. et ça vous a combien de temps euh, bind Yewwi. Yewwi Yewwi Yewwi Yewwi yàggul parce que buma xolé yew bi euh instru bi moo jiitu comme toog studio ni defuñu dara. man nag équipe bit maa ngi koy nuyu sax booy bu tàng la mm-hmm. toog studio tëgg bit bi ñun dugg si euh, loco One Nation yi sax lañ nekkoon xam nga di toog noonu di waxtaan après mu play instru bi bu ko playee am na ay affaires yi ma dugg ci parce que mois boobu noonu maa doon maa ngi doon wax euh, comme côté politique la woon yeewi mm-hmm. askan beeg yooyu xawoon am benn bruit ah. <laughs> ah, <laughs> voilà léegi bi mu dóoree instrument bi am énergie

après 72 heures de naa si ëllëg si laa ko contacté waat. ne ko damay def record bi affaire donc euh, je me yow euh, nga bind dëkk bi. Euh, mhm. ci période bi nga xamanteni ni dëkk bi tang na metti et puis voilà quoi. mën nga ñëwaat un peu si nan la idée bi ñëwee. sound boobu sound boobu nekkul soit au Jomé Mbaye quoi mais soit au Sylvain la. Sylvain soo am la quoi moo fiil loolu noonu. ñu ma defal loolu quoi euh, fële de l'autre côté noonu la demee après mu ne ma xam nga joobal si sound bu mel noonu son yi joob naa si ñaari sound sax mooy loolu noonu parce que jamono boobu xam nga temps bi tàngoon na trop dëkk bi yéeme woon na métti na quoi franchement parler xam nga tey jii nii son boobu noonu tey bu ñu ma joxee thème bi genre mën nañ ma jox thème bi jox am bi thème mhm. jox jox ay yeneen quelques rapport thème bi te ku nekk li ngay bind ak sa moroom li muy bind du bokk. mais moment boobu noonu c'est normal ma wax ak ñi ñi fi nekk quoi parce que wolof day wax ni di jégalu ci kàddu yi parce que dañ naan mag mu war a laab xale yi bu jonk ne ci digg kër gi di puub <laughs> kan moo war a laab xale yi quoi yaa <laughs> maanaam ki ngay laab jar na laaj quoi. yaa ngi si léegi ñun nag mënuñu wax ak kenn kurul ñi nga xam te ni ñoo nekk ci kaw quoi. yaa ngi si noonu la demee moo tax xam nga ñu jaaree ko foofu noonu wax ak ñoom parce que ñun tamit ay rappeurs lañ. yaa ay rappeurs lañ te ñun dañ fi war a nekkal. peuple bi quoi. Mm. yee noonu la fa demee quoi. bagage yi noonu la duggee après ñu liggéey ci def ci lu nice après yoon nekk Sylvain même Sylvain son bi mooy ci biir sax moom. ok producteur euh, mais mu ngi ci biir quoi.

xamuñu li ngay def lan la yaay comprendre parce que tay man nga nek ci ben affaire mais do xam exact li ni lan la quoi fa la la wara war mana fa la lay yobbu xam nga fo wara parce que lu bëree bëree bëree bëri man na ne ci rap man xawmako won ko woon lu lay lu lay lu lay may xaliss xam nga parce que moy lol non quoi ñun dañuy rap dañ bayyi lepp ndax rap donc ton war nañ fayé ko quoi tay gis te tay c'est à cause de Sylvain lu bëri xam nañ ko non alhamdulilah quoi sante quoi parce que man amna son propre label am samay boy, moy may ya yaa ngi comprendre mais yow bokkoo si labelu. si maa ngi si labelu sa waay. mais yaa ngi si sa label yo tamit maa ngi propre label quoi. nu do Bob. boobu ah. Music. moy jandeer quoi. Non le demee. d'accord euh, suivant tay lan moy objectif euh, compilation bi projet bi la nga ci xaar parce que quoi qu'on puisse dire projet bu lourd la ndax am nga ay partenaires euh, comment ça se passe partenaire bi One Nation TV là. Hmm. One Nation TV après li may xaar ci projet bi révéler de, révéler en fait ces artistes quoi loolu idée bi idée de base bi révéler ces euh, ces artistes là def en sorte que booy yi demain suñu le projet en fait duñu duñu recommencer à zéro quoi. Hmm. suñu demee jox la projet ne la femme waay demain damay génne naa sama projet di nga leen xam ba pare mm-hmm. a jiw même ba bu révélation scène, ok waaye di jox ma sa projet xam naa dina nice mm-hmm. parce que déglu naa sa déglu naa say morceau mm-hmm. c'est qu'en fait loolu mooy idée bi quoi def en sorte que ba Sénégal xam euh, xam révélation scène quoi xam artistes yi ko yi ko composé te euh, gis ne am nañu trop talent après euh, idée bi mooy instant yi dañuy def promo bi instant yi promo bi la ñuy def bëgg nañ def après ay spectacle quoi révélation SN dafay concert euh, comme ça communier avec le euh, public bien en fait. D'accord. Et depuis combien de temps vous euh, êtes producteur C'est en 2003 ou bien avant ça D'accord. En 2003, maintenant, on a fait 4 albums. Pourquoi tant de pour Moudjel que les 2003, en fait, Omzo m'a en production. Quoi. Okay. Omzo. Ouais, euh, avec, euh, avec, avec djamou djerma mhm. Après, me produire Dread Schizo après mon job ak ça, euh, job naag Mao tamit aussi CDB mais coproduction la quoi man ak ouais. mais après en fait de me retirer woon en fait de me retirer où parce que dafa xawone dafa xawone ki quoi dama gissulone trop avancement ci affaire yi surtout fi Sénégal faut ñu faut ñu gëna a structurer affaire yi en fait. Ouais, surtout affaire surtout côté côté SODAV côté droit d'auteur euh, faut affaire ñu gën ko restructurer pour artistes yi giss sen bopp déjà producteurs yi tamit giss sen bopp c'est surtout ça après je me suis dit que son yi ma envoyé Love ak euh, Destinée de Chief Atou euh, après il la amaat envie mais mais différemment en fait c'est-à-dire je suis damay mais je jël suis dit ils seront méconnus en fait ba a en sorte affaire ñu euh, ñu quoi si Sénégal est-ce que pas risque djel euh, boy yi nga xamante ken kenn euh, est-ce que côté euh, jiisu comme nous kay koy dina dugg wala. loolu moom ci neex en fait. après risque risque risque mo lool mo intéressant quoi. ouais ouais si si lool moom lool moom ci intéressé. Uh-huh. te après man personnellement en fait amna ci retour yu waa yu yu yu yu positif yu nice. Mm-hmm. te après man lool lool loolu laa njëkk quoi ndax album bi intéressé na nit ñi ndax en fait suñ ko déglo dina leen def effet parce que rap rap c'est euh, créer une étincelle, une étincelle en fait chez l'autre waaw soo dégué album bi dalay def affaire quoi loolu moo nak en fait mané ne amul amul regret si si am et tout ça en plus ouais tout ça d'accord euh, donc tay su ma la déggee wutoo ci xaalis en fait nga hip hop hip hop ak rap bi après là quoi je pense après nga def lo xamné c'est impactant en fait ça ça ça ça impacte en fait les gens c'est ça touche ça touche en fait le public après ci le, ci la xaalis bi ci la xaalis bi di ñëw quoi parce que c'est au fur et à euh, mesure. non ça dépend au Sénégal c'est rare en fait. ok <laughs> <laughs> Sénégal da ngay ñëw di ci japp da ngay dem euh, à l'extérieur Faut ça marche trop bien. il faut c'est plus carré en fait il faut plutôt être concert ngay c'est plus intéressant en fait. concert après euh, c'est surtout ça en fait. d'accord ambi bi tey lan moo la dugal ci rap ça musique. ok euh, feeling feeling am gars mo di déglu di di dem ay concert beaucoup son beaucoup quoi. Hmm. <laughs> comme le wax moi slogan hmm. euh, le rap c'est un besoin naturel. Hmm. d'après moi je me nourris de lui quoi. je me nourris du rap damay déglu rap chaque instant chaque si laay nekk. am am ay idole. Euh, waaw xam nga du ñàkk. rap moom <laughs> saa boo defee dara ñu ne waa kii kii lay nirole wala sa kii sa idole wala kii lii. ah gars yi ñu ngi fi gars yi bëri nañ kon damay nga ne du cité kenn <laughs> du sa question rek question la. <laughs> non non non non non gars yi bëri nañ de boo xoolee li may teg nga xam ne damay xool fii xool fii xool fii te du ma xool ci kii euh, n'importe qui. bo boo bo boo ma dégloo xam duma du copier duma duma duma ma du ma inspiré wu ci ku médiocre mhm. non non ay ci ay pro la inspiré wu moo may may def ay truc de pro bu ma leen rawul sax parce que bo xolé li may c'est c'est différent quoi gisaguma kenn ku def loolu noonu ci ci gaay yi mais hein? comme kan ah comme kan comme kan yoko ya, gis ah non man ñom la gis yow ya, am nga gis de ya, say ma bi ne man mëna naa popesa parce que sama frère la té dafa mën waaw popesa mën na trop popesa déglu nañ ay popesa déglu nañ ñeneen ak ñeneen ñi fi nekkon di di tangam waaw di ñëw conseil di mais daw sama question ah ba tey baax na non daw ma du ko daw <laughs> jo yow tam même question bi la lay poser sa amour sur musique eh, ak kañ nga jëk yegg podium rap waaw man je me rappelle nag bi may jëk yegg podium school la woon quoi si dama trompe pas jour boobu sax laa njëkk joxe nee ma zoom même mbaawe school la woon parce que jamono boobu nekkuma rapport mais maay ànd ak sumay grand frère quoi yoo xam si ni ñoo ngi ci game bi di rap mm. mooy loolu noonu mais am am fesco bu amoon samay school CM Jander euh, bon ñu ni classe bu nekk day génne rapport quoi mais man boobu nekkuma rapport mais su may jàpp man samay xam nga xam nga rek <laughs> mu damaa yàgg nekk booy boo xam si ni dama xaw a xaw a soof daal yaa comprendre <laughs> léegi sama school sama classe nag booy ni ma booy yaay nekk eh, suñu rapport quoi ma leen ni tënket après jouru fesco yi jamono maay def sixième quoi après si la si la gars yi woote ma yéeg ñu ni rapport sixième ma woote ma yéeg ma yéegee ñu ne man nem bi nan la ma leen ni Zomemba léegi je me rappelle bu ma waxee Zomemba boobu rek tak nit ñi dañ yuuxu quoi parce que parce que loolu daf daf yeey ki fe quoi après ma rab foofu noonu yëngal ma pare yeneen artistes yi nangu ñëw yéeg quoi mooy loolu mais booba foo la woon nii noonu la demee <laughs> dañu xof quoi foo la woon nii rek mais mooy loolu noonu mais bi may def euh, seconde nag ci la ma affaire yi nag commencé dugg quoi yee ba sama papa ma amoon seeg belem sama famille xam nga maa ngi bëggee sama papa ba baax parce que ñu woon d'accord ñu woon d'accord ñu woon mais nga leen convaincre

secteurs même ba xam nga après sama papa ni ma yow kon bàyyi woo rab quoi man ko non bàyyi naa de mun ma miir yi ma gis nii nag gaynde yow bind nañ la fépp man nga non. mbaa du mel ne Alpha Thiam ci élection yi. noonu la demee nag léegi final bi final bi xam nga rek final bi man sax lu ma bett la quoi zone bi yëpp jóg kaar yi ma yóbbu xaw ma ko sax man. yi ma yóbbu woon si ay kaar man xaw ma ko affaire bu doy waar. ñu dem xam nga jëli final bi lay public bi ak noonu am nga jour boobu nag c'est ma paa quoi. da doon bañ ma teg sax si gàll bi. musique libéré dama liberté quoi liberté <laughs> noonu xam nga commencé rap mais tamit booba comme léegi li ma la wax rek xamuñu woon li ñuy def lan la quoi. Hmm. si bu ñu woon li ñuy def lan la mais xay na bon nii la ko suñu borom nammee quoi. parce nit ki tey bu la yàlla nammee yóbbu fu kawe. faaw moom fu mu la jaarale pour nga xam lu bari. Hmm. noonu la projet bi gis yàkkamtiwuñu dara. gis nañu projet gis nga sa bopp. yeah nice nice gis nañu suñu bopp bu baax a baax a baax. nekkul di leen nax. non kii garaaw de. kii producteur la bu baax parce que maa ngi koy wax quoi. ma ne euh. Sénégal man euh. man Fama dama koy wax ma ni ma ni amul producteur ay profiteurs ñoo fi ne. dafa bëri ay profiteurs. yaa ngi comprendre dund naa ko dund ko mais kii vrai producteur la quoi. ok na ko gars yi. réel quoi bàyyi xel OG <laughs> télé. rajo nii affaire yooyu émission yu bëri projet bi. am nga say opportunité. waaw waaw mu ñaax après boo paree retour yi day positif gars yi dañuy kii parce que ñu ngi lay gis quoi. ok ban style de musique ngay def. Euh, yëpp laay def. world music. yëpp laay def sa dépend ci instru bi fu ma samay inspiration fu may dikkee rek. Euh, nan ngay inspiré woo nan la inspiration bi di ñëwee booy sangu booy nelaw booy. <laughs> <laughs> waaw comme ni nga ko waxee wax nga xam nga loolu ça veut dire que mënoo ko contrôler sax parce que yaa ngi wax booy sangu booy nelaw booy kii donc. affaire yi ay voyages lay nekk ça <laughs> nekk si oto sax xam nga. Mm. am loo gis nii si tali bi rek affaire yi commencé jël sa kóol taj taj taj denc.

comme ça lancer l'aine en fait. Mm-hmm. C'est ça. Et après préparer la, moi préparer la, deuxième saison. Ah, Mais un peu plus hein. tard, ouais. Un peu plus tard, quoi. Avec les mêmes artistes ou alors d'autres Non, ce sera euh, de, nouveaux jeunes en fait. Ok. Ouais. Il y a un, un repérage voilà. Nous, nous, nous, nous à faire. boy, boy, boy, <laughs> Franchement, il y, a, y a beaucoup de talent en fait. D'accord. Donc, est-ce que tu as eu la musique Sénégale peut-être que vous avez la chance euh, rencontrer ki nga xamante ne Sylvain mu si jàpp boole leen compilation mais ku si nekk sa carrière solo quand même est-ce que yomb na def. Musique Sénégal waaw yomb na yombul si si kaw yow nga nga mën ko si kaw moins yi nekk fi comme comme ñun ni nga chance, waxee am nañ chance nekk ci label pour xam te ni mooy def da war a def son da war a prise mix mastering moo koy gérer da war a def clip vidéo moo koy gérer. yéen daal nelaw bu doy inspiration rek la laaj loolu la liggéey <laughs> te ñoo ngi si. disponible aussi te am na ñoo xam ne amuñu chance boobu peut-être seen i propre moyen la ngi jëm man je me balaa may balaa may signé Rorab mag sama gars yi la woon. Hmm. sama gars yi booy tey foog ñu teg 500 500 mun def benn kermesse moom revenu. Hmm. bu ma teg 15000 wala 10 ñu dem. def ben son affaire yi mm. moment boobu lañ ñëw gars yi maa leen nuyu sax sama 5 auditeurs eh, yi Ephraim Diatta Barthélemy Omar Koli euh, Mamour Ndiaye ak yenen gars yi ci souf ñep ñu ko ñoo doon dajaloo chaque fois donc xam nga artiste bu nekké moment bob day metti mm-hmm. voilà te en plus amul ben ouverture gisoo ko la jappalé donc côté bob dina metti mais bu fekkee côté boo xam te yaa ci label mu ngi gérer lépp ça va sant quoi. kéro ba gars la gën découvrir. D'accord. en tant que jeune euh, am label euh, nekk si beneen label di jàppale ay jeunes comme yow mm-hmm. est-ce facile. ba yombul de wax dëgg fa yàlla comme saa léegi li muy wax maanaam Galsen rap fi yombul de. Mm. nekk fi artiste artiste nii nii carrément dafa laaj ay moyen bu baax a baax. te maanaam maanaam maanaam maanaam ñun maanaam Sénégal considéré wu ñu considéré wu ñu artiste quoi maanaam. xamuñu yee maanaam rap dafa metti saa yi maanaam yow tey jii nii da ngay gis benn jeune. rab dafa métti waaw waaw yow yaa rab. non pas pas yow yow léegi ñëpp mën a rab paa pas affaire de yow maanaam teg bi bind son bi xam nga tegu ci koom yomb na. Mm. jamono mi toon loolu moo gën a yomb mais daa am loo xam si ne moo ngi ci ginnaawam. am lan ah. c'est quoi. li mu laaj dafa bari dafa laaj dafa laaj dafa laaj doo bu bari sax xam nga tey léegi maanaam da ngay gis benn benn nit. yow doo doo ko bëgg xaalis nga kenn du la nax xaalis kan moo bañ xaalis man xaalis kese laay topp bàyyi man jamono bi ma toll nii xaalis laay wër de wër <laughs> demee nag xam nga dañ bëgg a yóbbu maire yi màkk paa yi màkk yaa ma gën a xam incha maanaam léegi da gis benn jeune téye sa son ci kóolam di ko play quoi déglu Zomemba xam nga mu jàpp ne yow mooy lay dimbali quoi yaa ngi comprendre fekk dimbaliwu la yow yaa ko dimbali yow parce que yow ya koy bëggal parce que manam yow ya dem jënd sa instru jënd ko cher ñëw fay prise studio lu cher mix mastering lu mhm. cher te bi ngay xalaat tamit xamuñu foo nekk yaa ngi comprendre mhm. léegi tey maanaam gars ko exemple ci Spotify partout mais gars xamuñu sax nan la quoi YouTube lañ Mm-hmm. yee mënoo dox si dëkk bi ba dajeeg benn jeune nga xool koolam gis ay sport yi ay yeneen yeneen kii quoi plateforme yi xamuñu ko te xamuñu ñoo ngi rey artistes yi ñun maanaam ci plateforme yi lañu lañu war a mën a si la gaayam ni jaare pour que ñu am ñu am ñu am dara quoi mm-hmm. ak concert yi ni teg et tout quoi parce que Galsen boo xoolee presque musique bi ñu siñu lekk ñu bëri ay ñoom waale seeka la yaa ngi comprendre kon jaay dañu war a xam nga gën a yéegal niveau bi indi lu bees maanaam ñun ni ñuy jaayantee ñoom public bi dañu war a xam nga gën a tamit xam nga mooy loolu noonu quoi. yaa ngi ko mën neexul booy booy rab rab dafa metti trop dafa laaj nga sañse lu cher. yaa ko comprendre shooting yi ah. noonu la dem shooting yi ngay def clip def bling affaire yooyu dafa <laughs> cher bàyyi clip dafa cher boo paree bàyyi xam nga promotion promotion bi ngay def. télé yi ngay dugg te jamono min tonni toll mën naa sa télé la plupart guys yi tuñ ko carrément quoi. ba xolé ci réseaux sociaux yi. si réseau yi télé ci poche léegi. non la demee réseau yi ci la gars yi gëna nek té te réseau yi gars yi gëna am code ci sen page yi les gars dañuy laaj xaalis bu bari. Hmm. mais ku am compte am doole mais xaar bu bari la lay laaj xoolul ba xam am nga talent wala am amoo talent les gars yi xoolatuñ talent. Hmm. ku am lañuy ñuy xool. d'accord wala link. bëgg naa ci wax dara. d'accord vas-y intéressant na hmm. euh, en fait pour man public public public la euh, lan lañ gën a soxla lan lañ njëkk a muy éducation en fait. Mhm. par rapport au streaming et tout euh, même YouTube ça nga fay streamer à nos solo. mais en fait ñun Sénégal on est quoi on est 18 huit millions. 5 mhm. euh, millions yi nous streamer ce son rek quelque chose. c'est mhm. yaa ngi gis c' que loolu en fait loolu la ñu war la quoi di loolu la ñu lañ leen wax comme ça ñu comprendre quoi parce que di di di di dem YouTube dit ko streamer musique sénégalaise, ouais rap séné rap sénégalais. Mhm. di ko streamer lolo en fait day may doole musique bi quoi parce que lolo loolu day indi xaalis même pas nga dem Spotify wala Deezer mais YouTube rek mon nga ci régler dara quoi. c'est que pour moi en fait lolo lañ si lolo la ñu war a. éduquer en fait qui euh, bi quoi public bi euh, comme ça ñii tout le temps ñuy dem streamer et ça risque su def concert mu jaral la en fait. parce que lolo moi tax après ouais mu mon gagner un beneen album quoi d'accord euh, budget B. budget de ben compilation <laughs> révélation SN budget B. est-ce que tu as ñu ci ça ça waaw de budget bi dara hmm. mais euh, je pense qu'après amour du monde solo en fait. am solo amour du monde eh, non amour du monde solo. <laughs> d'accord lan moi ce dernier mot. C'est le dernier mot moi, aller streamer l'album en fait euh, Révélation SN y a y a d'excellents artistes. Euh, qui, qui, qui mérite d'être soutenu en fait c'est ça c'est une plateforme là ko on a euh, ñu plateforme YouTube Révélation SN si vous tapez Révélation SN sur YouTube vous l'avez euh, Spotify Deezer Boomplay nous ñu fait pas en fait partout écoutez l'album après soutenons nos, artistes en fait hmm, c'est ça c'est ça le mot de la fin d'accord nous leen après freestyle pour pour di la béggee aussi kontaan ci invitation bi di bëggee suma waa gaale peut-être ñu ngi xam naa ñu ngi toog scotché wu di di seetaan di kontaan naan tey <laughs> suñu waa ji <laughs> waaw <laughs> donc maa leen nuyu ñëpp di nuyu jàmm gën bi ma jógee waa di nuyu sénégalais yëpp daal ok. d'accord waaw man li may tëjee mooy jeunesse bi laa bëgg a waxal tuuti quoi ak ak ak ak parent parents yi quoi ak ñi nga xam si ni maanaam nit ñi daal quoi comprendre nga. parce que dañ toll si jamono boo xam si ni dafa metti quoi dafa xaat yaa ngi comprendre léegi maa la koy wax ma ne yu bëri considéré wuñu comme tey Sénégal nga nekk fi artiste wala nga nekk fi joueur wala nga nekk mbër duñ la duñ la maanaam maanaam respect bi ñu la war a jox duñ la ko jox koi yaa ngi comprendre parce que fii liñ xam mooy tekki lañ xam quoi lu sotti yaa ngi comprendre mais bu fekkee ne ne yaa ngi yëngu ci dara sotteegul duñ la considéré quoi. maanaam dama bëgg gars yi ñu am battement ñu am patience quoi mm. que ni dara xëyul sotti quoi yaa ngi sib mm. parce que tey Zo Memba day nekk si studio am di job di job di job xam nga bu tëddee maanaam e, e, exemple guddee tëdd naaje yeewu rek ñu ni Zo dafa ñàkk fayda yaa ngi comprendre Zo amul jom <laughs> joueurs yi tamit la même chose bu ñu demee football yi xam nga ñëw xam nga tëdd teel a yeewu gars yi dañuy nit day xëy jàngi dem école nit boot saagam dem jouer ji football football gis nañ tey joueur yi kuñ ëppul alal si monde bi amul artistes yi tamit la même chose mbër yi ñoo fi fayeku benn ngontu comme de millions yaa ngi kon y' a pas de sous-métier quoi nañ nangulante ba pare xol ànd doon benn quoi que ni Diomaye wala Sonko duñ mënuñu ñëw rek defar town bi. mais faaw ñun ñun ñun suñu jëmi bopp ñu yéenante jàmm quoi. yeah noonu la demee for real. d'accord donc euh, may lañu benn freestyle la ñu tëj. Hmm. am may la quelque part tey la tey la tam xarit. <laughs> Eh, tam xarit ngay laaj quoi eh, duma duma du ma tànn xarit même ci tam xarit su ma am lekk cere def ci meewu alib dinaa peese ñëpp man la Abdou Jàmbaar surtout tirailleurs yi mënuñ si man gat du pege mine te du mbir guñ mine jonga les life mille tout ce pute te mu eh. feeñ fépp ni ay panneau pub Facebook flex lañ may sant di pic. <laughs> man bu may ñëw duma indi produit que sa yem si mm. mais damay rendi MC tas di gante pour mabal gémmeen gal sen ëppati noo du metti pour Memba mondial, comme les Yezi, c'est le visa. Comme Rastak Double, Frédéric, de Risla, là, vista. Dès que vous faites un reste dans les apparts de mixta, même pas reste dans le coin pour êtes dur pour devenir le roi de Fong Niska, attaque et rack Tak, fat fat, job de faté, game nigga full attack, fi 4 ni 4 4 contact. tout le monde en ça, c'est la routine. Bosse dire parle peu comme Poutine, ça y est mon neck footing. De gueule chakim, ni modo agwa pekin. Ferida Gaza Hakim, Maro Machine, ni le génie Kenny, comme le code de Kim. Um, tey bala may tey tëj uh, Augustin tey moom damaa am ay sponsor dañuy bàyyi ma wax ak sama sponsor yi <laughs> Thiané uh, borom bambinerie uh, Mouhamed moom moo jaar ci t-shirt bu rafet bi képp ku ci bëgg mun nga ko dem gis am na ay jean am na ay t-shirt lépp luy tenue pour jigéen lekk am na ko donc mën ngeen ko woo ci 77 371 49 98 bu ma ci mom ma ci KM euh, design KM centre euh, Center. yu gis nga de dama fi dugg ma parfum bi euh, huile essentielle yu mom mokay def <laughs> <laughs> voilà uti leen ko huile essentielle yi xam nga mi ngi def sarxatan mi ngi def musku tahara bi nga xamanteni ni euh, yu jigéen yi euh, temps yi mom lañ jël donc euh, mi ngi def cocaïne bi cocaïne bi nak bo leen ko du drogue douce bi de <laughs> moy cocaïne bi nga xamanteni dañ koy taal def ko ci papier aluminium bu la nexé nga def ci huile et tout brûler ko donc brûleur yoy mom moo koy def donc tay ku ci bëgg mën nga ko wo ci 77 362 15 50 wala 77 874 31 30 2021 donc euh, muy euh, waa KM design maa ngi leen di euh, jaajëfal bu baax ndax xet bu neex bi ñoom ñoo ko yor te xet bu neex de du la xool du dëgg <laughs> ak tàngoor gi nii ah da ciy baax <laughs>

pour pour Que nous ñu les jeunes Sénégal parce que nous devons développer li nga Sénégal peace